jërëjëf euh, jaajëf ab Abdoulaye Diop euh, jërëjëf bu doon heure bi de heure bu baax bi la moom heure boo xam ni tabarkal lu waay leex euh, neex lekk lu waay neex naan laaj naa kaasu meew bu am ay tàngal mante ki passé ndaxte soj naa sojo sojo soj ah sëñ may maa ngi lay siyaar Euh, di bëggee auditeurs yeeg internet yi déglu ñëpp ñëpp ñëpp di kontaan ci yéen bu baax a baax partenaires yi nga xam ne ñoo ñuy gunge ci seen journal des faits divers classe tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax waaye di kontaan ci auditeurs yi ah di kontaan ci internet yi di leen wax ni tabarkàlla kenn du yéen seen journal des faits divers classe ci biir euh, RFM 94 point 0 euh, ma ànd ceeg passe partout <laughs> la ilaha la ak Mamadou Ndoye Bane man de maa ngi mel ni see ndake man nag sol jàpp na ma dugg nga ci lu doy ah Passepartout. ku baax ah, eh, laaj ma rek ndeke man yu jàpp na ma de. moo baax na. baax na waaye laat gi sol nii tay tarkal lasan ba ñoo ko ñoo la la ca desoon de waa li nga encaissé fële ne le. waa lasan eh, ba ci addiya gi sama kenn maa kër yëpp siyaar ma baal. <laughs> ñëpp yi génn xéwal di ma ko fekkee de am na lu ma ci jot a rawale sax. ndeke lu la doxee. Mm. maa ngi lay ziar sama waa ji maa ngi delloo kontaanee bu baax ban. waaw maa ngi lay nuyu. sant numéro 10. jaajëf. ziar naa ziar auditeurs rek internet yëpp. jaajëf waay di bëggee képp kuy bëggee RFM. jaajëf waay. ca kaw ca kanam. bàyyi nga sa gars yi de. waa Kaaru Fajar. Hmm. non ñoom a mën dañoo miinante léegi maa ngi ñoom. ah ok ok ok. léegi dañuy daje fële 157 17. xool day gisee. xool day gisee ay ca ban ñu ngi lay ziar. ziar ziar ziar waaw ñu ngi ziar ak màggal rek. jàmm waaw di ñaanal ñëpp jàmm rek. Hmm. Eh, mi yàlla mi borom hmm. ko ci xol yeeg xel yi def ko ci biir kër yi bërëgul wéyikaay yi. ku bëgg jàmm may jàmm ku bëggul jàmm yàlla na yàlla forcé jàmm ji di la ko forcé forcé ba nga may jàmm yàlla na am jàmm. jàmm fépp rek waaw jàmm partout. Ah, waaw waaw nga xam ne soo foo xool jàmm ngay gis. Mm, jàmm ndengale rek fépp am jàmm. ndengale rek fépp am jàmm waaye dégg naa fa coow li. nañu waxtaan rek quoi. dégg naa coow c'est que ay coow moom bëgg na non non dengale rek fu mu mënti doon. li mm-hmm. nga ah. dengaleer. Mm-hmm. jeunes ya fa ne ak ñi ko wër ak jeunes yi ñoo war a yeewu. Ah. man nit su ma nit di indi liggéey dama ci kontaan dem liggéey liggéey bi waaye du ma nangu ay nit di ma génne naan ma bu génneel ci lii te doo ma jox ci lu ma jàpp. Mm-hmm. te bu leen nangu benn politisien di leen gàddu jàpp buum jàpp ko seen baat takk ko seen baat di leen diri. les hommes d'affaires de ce pays là ñoom ñoo mën a defar dëkk bi classe gu Youssou Ndour géeg classe euh, gu Serigne Bou géeg classe mais les hommes d'affaires de ce nga xam ne ñoo ay opérateurs économiques lañu. Babacar Ngom Babacar Ngom Sidima. Ablaye Dia ak Sénico ñooñu ñoo mën a doxal dëkk bi de. état mënul def lépp su nit ñëwee ci sa gox nag indil la benn projet boo xam ne waa dëkk bépp mën nañ ciy liggéey. bu leen nangu benn politicien di leen di leen di leen di leen di leen utiliser di leen xeex loo toog ndakaaru ci ay climatiseur am toog leen ngeen liggéey liggéey bi xool leen li leen nit ki indil ak lim leen ne nar a xañ. bàyyi suuf noonu kese tamit euh, naan suñu suuf la bàyyi ko noonu kese est-ce que tamit. loolu soo demee Pire sama dëkku maam ba. am nañ fa ay tool yoo xam ne man musuma gis sax man sax musuma faa dem. dañ naan fee rek sa maama ko moom. loolu rek nga ciy am loolu doo nga ciy am. ba nga juddoo juddoo ba ni ma toll nii léegi nag tey ji benn abaa day ñëw. état jàpp ànd ak état état jox ko ay kayit mu ñun ñëw foofu di fa bay léegi nag passe-partout ma nga xam ci dëkk ba la dëkk mooy ñëw xañ ko dëkk ba nee neen abaa day ñëw dalee ne nax nangam ak nangam ba xañ leen ko léegi nag passe muy ñëw du teg ci seen loxo dara man d'accord naa tey soo ñëwee ne leen jeunes yi yéen jeunes yi ndengaleer lii bu leen ko nangu waaye jàpp leen ci lii dégg naa en tout cas man man damay bëgg lii jàpp leen ci lii damay foog ni tey état bu suuf kii yaa ko moom ay suuf yi maam yi ay diw ak diw ak diw maam yi ñooñu dinañ ci ñam wala ñi ñi fi bàyyi hmm. euh, dinañ ci mos ba pare bu ñu loolu euh, entreprise bi ci biir gox bi euh, jël ñi nga xam ne ñooy xale yi dëkk ci gox bi ñu ciy liggéey hmm. loolu foog naa ne bu ñu toogee ba waxtaan ba xale yi comprendre ko nii mu demee nii yaakaar naa du nekk xabaar xam nga ni bëri na ci waa dëkk ba yeewu nañ loolu ah abaa ah, hmm. man dama dul nangu dëkk ci gox kenn ak benn benn homme bu ko mel ne Babacar Ngom ñëw indi fa benn affaire may ñëw di ci liggéey beneen nit bu dëkk ca dëkk ba nekk ndakaaru nekk fonctionnaire de l'État di fayee ko ay millions man sama papa su añee du reer. Oh. may liggéey ci Babacar Ngom ngan ma bu ci liggéey Babacar Ngom da leen nax. waa dañuy nax waa léegi jox ma jox ma jox ma lu remplacer lii tegoo ci sama loxo dara dara dara. politique bi lañ war a bàyyi te jéem a xool lu développé dëkk bi ay naara ngi fi am na ah. ay naara ngi fi ay français ñu ngi fii ñu leen di jox suufu réew bi ñuy liggéey pendant des années te su fee suñ jëlee benn mètre suñu ko joxee ab sénégalais ñëpp di wax ah fépp par moo ne Olof Njaay moo ne loolu lool loolu damaa ci d'accord Olof Njaay moo ki la jox nga ndékki hmm. bu la nee nga dem toxi say soxla heure añ di nga añ nga mën koo gëm nga mën koo gëm Babacar Ngom li mu fi teg hmm. employé yi mu fi teg nii euh, bu ñu nee nañ ko joxaat suuf mu am lu mu ci def li baan li baan wax nii li baan wax nii boo demee Richard Toll moo fa Saint-Louis moo fa am moo am Thiès gii. waaw espagnol yi ñëpp. te musu man musuma dégg ko coow. est que mus ngaa dégg kenn ci internet bi ñu naan waaw espagnol yi ñu jox fii ñi ñuy bay tamaate ka bay ak kii ñu koy. musuma dégg ay suuf maam yi jàmbur lañ. seen waxtaan mais nga jël benn benn benn benn benn bayal jox ko abaa jox ko sénégalais sénégalais ba am problème. mais nag mais nag mais nag ñun sénégalais la nag ah? moom ñun sénégalais la. loolu la sénégalais ñun suñu biir la ñun. Babacar tey jii demoon jékki-jékki mu doonum naar ñu def fenn kenn du ko kaas kenn du ko kaas. nañ avancé na France kenn du ko parce que ñu lay sénégalais bëggantewuñu ñu yàqalante. na nañ eh, eh, avancé eh, ban ma sànni la xeer de ban ma sànni la xeer. Euh, foofu lañ jëm waaye balaa ñu fay dem suñu suuf yi ñuy kaas naa nañ ko jox kii wa kii na ci gouvernement bi jël ñu tabax ci ñaari stade wala ñett tamit ñu soxla ñu ay stade. waaw loolu soxla mais tamit mais tamit pendant qu'on y est Abba. bi am jaxaay. jaxaay titre ah, foncier 1451 bi. waaw ma nga yënguwaat dina fi indi coow loo xamante ni. yënguwoon na ci état bi jóg na nga yënguwaat ak SNHLM nañ ci communiqué. parce que nit yi jënd nañ seen seen xaay seen suuf. Mm-hmm. ba pare. Mm-hmm. ñeneen ñëw ne seen maama ko moom. Mm-hmm. te SN moo leen ko jaay. li tamit place la de. ah doy na coow lu rëy laa lay wax nag. doo wutal loolu maa ngi ci maa ngi ci. saa teg na ma ci yoon fu ñu jëmbaat fan nekkoon démb. ñu ngi ci numéro cinq déglul. Eh. ban ban ban ban instant nga sentir ni. da nga war a dem porter plainte. bi may bi may yeew eh, bi sama xel di di dellu si waat boobu fekk na c'est trop tard ndax dama xëy benn bés rek ma ne xale yi kër dinaa ko porter plainte xale yëpp jóg ne ma yaay kii def lay def loo xam ne baaxul parce que dafa soxor kii yeeg ni muy waxee ak ni muy defee nii te ñun bugg nañ nga yàgg fi. suñ papa nekku fi yow yaa fi nekk ñun bu dee dix milliards ñun na ko jël te yow nga ne fi ma ne leen loolu mënul nekk. boobu fekk na lekkal na la ñaata ak ci sa ak sa ay bien. li ma lekkal mot na huit millions. wax dëgg yàlla mot na huit millions. moom daal li mu lekk bari na. te huit millions bokkul chaîne or yeeg. déedéet bokkul bokkul bokkul ndax mu jaayoon naa sama terrain am lu ma ci yor te terewul xaalis boobu yëpp ci moom la dem léegi nag moom mu ma nee ne man joxuma ko benn dërëm te eh, ram li ci nekk kas new xale yi jaay seen matériel yëpp lañ jaay seen lal yeeg seen armoire seen clim yeeg. yépp lañ jaay di taqale nii lii la ñu sëñ Babacar def xoolal lii ni lal yëpp gisal armoire yëpp lañ jaay te moom jëmam jooju moom moo tax bu fekkee dafa abusé ci xam na ko jëfandikoo nee naa ko man soo jëlee sama bakkan sa xale yi dañ lay topp man ragaluma ma jëm juróom fukki at yu tegal yoo xam ne boroom rus cee def lu ñaaw moom mu taxaw ci kanamu commandant waxal ma loo xam ne amul su ma ko bëggoon a bàyyi sax duma ko bàyyi parce que dama bëgg injustice yi boppam jóg ci réew mi gis nga jigéen góor warta jàkkaarlook moom ak nu mu mën a toll jigéen yàlla dafa defoon ci moom orma boo xam ne seet naa ne léegi nit ñi dañuy piétiner droit yi lu leen neex la ñuy def nit ñi di ko def xale yi moo tax ndooy baan mi yàlla war na ko fee bàyyi dafa ubbil nit ñi seeni bët ubbil nit ñi seeni nopp te boo seetloo saay-saay yu bari léegi démissionné ni te kii nii dafa bokk ci benn gang la boo xam ne ay ay nit ñu bëri la yor ay complice am la yor ba sànq rek am na ñu ciy woote naan ne leen ko na wax fan la dëkk bii ay nit kilifa naan ma dañuy jël suñu oto ñëw jël si man ñu ne dañuy ñëw topp autoroute bi ñëw jël la yóbbu. man oh. xam xanaa jël ma sànni ji ma. maanaam xam ñu lay woo la menacé. waaw dañ may woo di ma menacé ba léegi rek. ñu ngi may woo ma menacé waaye man am fi ma wéeru naaw naa ko. ñu lay wax xaw ma xaw ma ci kenn ñu may woo xaw ma ci kenn. waaye sant yàlla rek ndax sama alal la maa ko moom waaw alalu jirim nag ku ko lekk dañ ko gëq waaw seen waajur nekku fi daal may jigéen may góor donc dama koy mote xalaas ñoom nag ñu ngi doon waxtaan hmm. pour mu rembourser maire bi mais démb ñi fi ñëw ci rajo bi. Eh ban dama foog ni mer. application Zen Radio sur Google Play ou Apple Store et écoutez en direct ou sur les radios de votre pays en Afrique RFM ou Sud FM du Sénégal Radio Nieta ou Clédou du Mali Nostalgie Guinée FM du Burkina Radio Lomé Radio Topka Radio Congo ou encore Africa numéro 1 etc. Tapez seulement Zeno Radio pour télécharger gratuitement Zeno avec Z E N O. loolu fa maire bi tentaat yooyu mu ko naat yooy ku ñëw dalay waxi naat amul kuy ñëw te la laaj naat danaa la ay deux cent naat ay cent cinquante naat ay trois cent naat ak ni naat chéré man bi mu njëkkee ñëw loolu la ma laaj ma dem jaay sama chaîne or ak jaaru ñëw jox ko xaalis bi cinq cent et quelques mille ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yi mu lay laaj bu gi fekk yow dalay rabta rabta rabta ba nga wow ko te lii ma leen seedeel ñeneen nax ñeneen ñi mu ko def kenn xamul nu mu toll femme yi mu def lii kenn xamul nu mu toll Babacar li mu ñi mu turiande kenn xamul nu mu toll waaw foofu ñu ko denc buñ ko mës a génne parce que turian la te dalay laaja laaja laaja laaja ratt laa ratt man noon laa def ba léegi mu lekk sama xaalis ba ma demee ba xam ne fii daal te mambal Balla moom di ànd ak moom complice la foofu kooku fu ñuy jàppe Babacar war nañoo jàpp Mame Balla parce que moo koy wutal ay client comme li ndooy wax noonu mooy jéema a client yi ku ñëw naan ah kii dafa gaañ at gaañ askan wi surtout ñu jigéen ñi nga xam ne on est faible ba deux millions parce que da laaj ba dool da lay gëlëmal te dara génn ci gëmloo ma ni sama yaay ngi waaj a dee te nit ku ne da nga bëgg sa yaay je te jure qu'il a fait trop de mal à beaucoup de dames beaucoup de dames et beaucoup de messieurs du ay gu jigéen rek la nax de am na yeneen góor aussi yu mu nax te du la yërëm ah góor ñi moom danaan la dama lay defaral jaaro bu la def defaralee jaaro bi nag si fini boo xësee ko takk jaaro bi te jaaro bi ki koy defar moom moom il a il a ses bijoutiers à il a ses cordonniers am na benn waay boo xam ne moo koy ëwal ay téeréem du ko yóbbu n'importe où bu la war a jox téere waaye ji koy ëw muy ñëw ba foofu ëw moo lay ëwal moom dafa am ëwkat téere am bijoutier am lu ne waaw lu mu soxla ay nit daal yëfi daal chaîne la chaine chaîne chaîne la boo xam ne nii ñépp ne ci biir les cordonniers les bijoutiers les ceci les cela boo ci xësee ba takk benn rek moom na la dégg nga ah, pareegul de. Mhm. am na ay cadre yu muy jàpp. ban sa yaay dafa war a dee. Mhm. mën naa ko teree dee loolu am na. non mais Abba c'est-à-dire këram ba dugg sëñ bi mën naa waat ni moom sëñ bi sax du ma wax parce que moom euh, moom turam bi dafa màgg lool te man damaa fonk sama turandoo waaw mhm. léegi moom mii sëñ bi ndax am na yaay moom mii moom boo ko laajee ndax am na yaay ah, normalement ban ku tere dee sa yaay moom kooku yaayam dee est-ce xam nga dara est-ce que xam nga dara kii bu ñu ci doon xalaas ah. ñu ngi ci daan deux demee lan li ci yor ay xalaat ba 2022 du jeex. du jeex ñi ñëw témoin dégg nga ko mu wax ko waxi jaaro. jaaro xam nga internet bi indi trois nga gis benn benn benn ba ba ba waajee Diop ñëw génn. Diop Ablaye Diop ja jaaro bay rey waaw Diop mi. naan toog ci ay ay jaaro yu kenn xamul. dootoo ñàkk dara dañ leen di nax. gis nga defarkatu jaaro yooyu sëriñ yooyu soi-disant sëriñ yooyu naan la ay su ma la defalee jaaro bi. Hmm. soo duggee këram ay pauvre rek nga fay fekk. du rakk du mag du kenn quoi. du rakk da ngay fekk bàyyam pauvre. te mooy defar jaaro yi um, te moom kay mooy defar moom ci boppam mu pauvre ba pare naan la yow man jaaro bi su la ko defaree da ngay loo wuti am ko. su fekkoon ce que est-ce que ñi dem nii dinañ ànd ak seen xel par yenn sax. des fois c'est que nag jaaro yooyu en général. mën na laa defal jaaro loo xam da lay gëlëmal. loo liggéey ñëw versé leen ko. nooy. waaye tey sant sànq gale yi dem jënd seen i jaaro naan la ay xaatimu Suleymaan dañuy nax du xaatimu dara dañuy sóob ndooy courtier yi dañuy sóob te ñu ngi ciy xaw a rey. yi est-ce que xam nga courtier lañu. Modou Modou am courtier sëriñ. voilà dañ lay defaral jaaro dugal ko ci colis bi def ko GP yóbbu la jaara bu daara dara soo ko daajee ab saabu daggatu saabu ne ci biir waaw léegi ñoom la moo tax ñoom la moo tax ñoom baan duñ la defaral euh, nga takk euh, ñu may la trois mois wala six mois bu dee yaa ngi gis nga fay defuñu ko xalaatuñ ko de déglu déglu moom moom moom moom daa am sëriñ ko a so déglu kanti naa daf maa jàpp ci baatin ba mënu maa wax ñoom oh. kunkaan xam nga day jaaxaan di saw sama benn moom ma boole woon ak moom yóbbu ma ba këram bi mu ñëwee nag ma fekk fa yeneen jigéen am ñoo xam ne dañu tëdd noonu ci ëttëm bi foofu ñu naan dañuy daanoo genre yooyu daal te moom dalay euh, kii xooy mat xaw ma nu ñu koy tuddee gis nga booy ñëwee ni ci moom dalay wan ni la waaw diw mee de euh, gis nga xaalis bi comme ni mu def maire bi rek mais c'est incroyable ni mu def maire bi booy door a yegg si dalay wan day war war a yor téléphone am mel ni kuy wax ak wala wax ak ko benn autorité bu siiw wala di la wan ni la xaalis bi am na ku ma fay comme ni mu def maire bi rek ne chèque bi xam nga loolu loolu premier contact ak maire bi mu indi chèque ne chèque bi ci benn autorité bu mag moo ma ko jox 4 millions ndax dama faj doomam yooyu la lay wan di la wan ni la xam naa diw am naa xaalis ah xawma lii pour pour jéem la xëcc ci moom Babacar Badji la Babacar Dramé Badji lañ koy wax ku doy waar la amul te vrai vrai vrai truand la gis nga kooku passe il a de mal je te jure qu'il a fait trop de mal à beaucoup de dames beaucoup de dames et beaucoup de monsieur du ay gu jigéen rek la nax de am na yeneen góor aussi yu mu nax te du la yërëm a ah, góor ñi moom danaan la dama lay defaral jaaro bu la def defaralee jaaro bi nag si fii nii boo xësee ba takk jaaro bi te jaaro bi ki koy defar moom moom il a il a ses bijoutiers à il si ses cordonniers am na benn waay boo xam ne moo koy ëwal ay téeréem bu ko yóbbu n'importe bu la war a jox téere waaye ji koy ëw muy ñëw ba foofu ëw ko moo lay ëwal moom dafa am ëwkat téere am bijoutier am lu ne waaw lu mu soxla ay nit daal yëfi daal chaîne la chaîne chaîne chaîne la boo xam ne nii ñépp na ci biir les cordonniers les bijoutiers les ceci les cela boo ci xësee ba takk benn rek moom na la yaa a do yaa de des cadres de l' yu fa jotoon dem noonu la leen def waaw boo moytu sax sa sa këyitu kër sax da koy nangu ndax lu mu la lool da lay gëlëma lu mu la lool lool ngay def man nag bi ma laajee di laaj di laaj di laaj di laaj ba laaj yi commencé ma soof xam nga bu la yàlla bëggee dimbali mu mel ni dafa am lu lu lu ma ek lu lu ma leeral leer bu ñëw ci man rek na ma arrêté dem ci kii bu fa demati. xamoon na ni. Mhm. bu yàgg-yàgg den kii nii dina ko jàpp. parce que mhm. nee na wóor na ko ni waa ji il a fait beaucoup de mal. beaucoup mhm. de mal. waaw am na ñu fi ñëw am na ñu woo suñu am ñu woo paas. ñu bari sax am ñoo xam ni ña ngay jaabanti gendarmerie mais bon xam naa ne daal ña ngay daal. baan am na ñoo xam ni. ñoom ah. ak agresseurs yi criminels yooyu hmm. dañuy rey nit intérieurement. ñoo tane waaw dañ lay ruiner. Hmm. Euh, ba yow dootoo bëgg ci dund bi dara ban am na nit ñoo xam ni xëy nañ leen fekk leen ñu dee ñu naan euh, dañoo dee ay mort naturelle ak yooyu ñoo créé seen dee ba dee parce que seen dund amatul njëriñ. dañ leen ray intérieurement ah, mais dama ne da ngay liggéeyee banque ñu fekk la fa liggéey la gëlëm loo la takk la surtout jigéen ñi takk jigéen ñi. takk la hmm. jabar. Hmm. jeexle la yoo xam da ngay sàcc ci banque bi di leen indi. non non ban ban bu doon takk jabar rek mu neex ban kaso bi jigéen ñi fa nekk ñëpp ñu si bëri. këpp kees moom fépp te dañu dañu ko def loo dañu kii la la kii baayam lay wër. am na ñu seen baay ba tey su gisul baayam nag yow laa koy may nga takk ko ñaareel ndax xale bi ni mel moom yéene naa la ko ba man soxna si na ma. wóor na yàlla maa ngi maa ngi numéro ku tudd Mami sant Thiam. a ku mën a la xam nga jigéen suñu sëyee lu yàgg. ban lu tax nga bëgg waxtaan lii ci kaw doo laase élément bi ñu yegg suñu waxtaan. bonjour je m'appelle euh, Marie Ferreira voilà je vous passe cette petite annonce parce que je suis à la recherche euh, de mon père euh, que je ne connais pas euh, voilà et euh, ce message j'espère que arrivera à bon port et euh, voilà le peu d'informations que j'ai c'est bah mon papa il s'appelle Jacques Ferreira, euh, c'est la famille euh, Ferreira euh, qui habite à, à Dakar. Et euh, ce que j'ai comme autre information, c'est qu'ils ont un, ils travaillent dans le commerce. Ils ont un bar euh, qui s'appelle le bar Coloban qui se situe dans la ville de Colomban à, à, à, Dakar. Et euh, sa grand, enfin ma grand-mère, la maman de mon père, s'appelle euh, Maria Santigne. Et euh, sinon quoi d'autre comme information Mais ma maman à moi, elle s'appelle euh, Céleste Mota. Et euh, voilà. Donc euh, mon nom entier c'est Marie-Olga Ferreira, donc fille de Céleste Mota et euh, et de de Jacques euh, <laughs> Jacques Ferreira. Voilà. Donc en tout cas, ben j'espère que mon message arrivera et euh, et que mon cher papa, bah j'espère te retrouver. Et j'ai mis le temps à accepter enfin à à vouloir te revoir, te voir Euh, voilà. Donc euh, la dernière fois que je t'ai vue, j'étais toute toute petite et euh, j'ai une image de toi, mais euh, j'ai plus vraiment. Euh, je me souviens plus de ta tête, voilà. Mais j'ai juste euh, les derniers mots que tu m'as laissés, où tu me disais au revoir et où tu me disais ça va aller, ça va aller, ça va aller. Donc ces trois petits mots que j'ai gardés depuis toute petite, qui ont qui sont restés dans mon cœur et dans ma tête et que je prononce à chaque fois, qui sont maintenant une force et une clé pour moi. Et euh, j'espère sincèrement te retrouver, te revoir et, euh, et, te serrer dans mes bras et, et te parler et que tu me parles et euh, voilà et qu'on puisse enfin se parler bah en tout cas voilà je vous remercie de m'avoir écouté et, euh, et merci du fond du cœur euh, d'avoir transmis ce message et qui j'espère retrouver enfin ma famille paternelle. Voilà. Merci. Au revoir et à bientôt. gis nga paas Aba. Mhm. mi ngi noonu. ku ku ku ko xam rek nga woo ñu ci cent cinquante. cent cinquante dix sept Aba. Aba ah Aba ngay jooy de Aba Aba waaye Aba yow eh, eh, eh, message xale bu jigéen bi ngay jooy. wala baatu bu neexu xale bu jigéen ngay jooy wala rafetaayu rafetaayu xale bi ngay jooy lan ngay jooy aba aba <laughs> <laughs>